garab yi yu bëri daanaka jeex na ci alam bi fii nag daañu leen aar bu baax a baax moo di centre national de recherche forestière moo di ab barab buy gëstu ci wàllum li nga xam ne moo di ressource forestière yu nekk fii ci réew mi. muy bërëb boo xam ni euh, état Sénégal daf ka tegoon 1974 pour mu nekk foo xam ni fa la ñuy defee gëstu yi nga xam ni dañ koy def ci wàllu alam bi euh, biñ ko defee nag. Euh, def nañ fi ay gëstu yoo xam ne tax na am na ay jéego yu bari def nañ ko ci nangu suuf soo xam ni dafa demoon ba sonn lool ba ñenn ñi sax jàpp ni dafa dee ndax dafa ñàkk ay ferñeent wala xorom sonal ko ci pour ñëw ci lool nag dañoo def ay gëstu yoo xam ni wut ay garab yoo xam ni dina wàññi xorom si ji boole ko ak li ñuy tuddee xottu gerte wala ñu boole ko ak loo xam ni moom la ñuy tuddee phosphocypes yooyu yëpp buñ ko defee doon na tax ñu daal di nangu ay suuf yoo xam ni jigéen ñi surtout dinañ ko jëlaat di ci def mbayum ceeb. buñ ko créer ci atum 1974 centre bi amoon na ay programme yu bare waaye tey ji daanaka dafa mel ni benn programme rek la ñu doxal. moo di ab gëstu boo xam ne dina amal njariñ askan wi. dañuy gëstu yi ñuy def mooy ñun li ñuy tuddee inventaire mooy ay saytu yoo xam dañ koy def ci ay gox-goxaan yu fasantikoo dañoo seetlu ni garab yu bari yu fa amoon amatu fa léegi nag moo tax fii dafa am lu ñuy tuddee arboretum benn foo xam ni dañ fay jéem a denc di fa wéyal di fa nëb di fa lax ay garab yoo xam ni mi ngi réer mi ngi naax saay te li ñu bëgg après mooy fu mel ni dakaar nga xam ni garab yooyu amatu fi xale yi xamatuñ ko ñuy mën a ñëw fii di ko fi gis euh, mën nañ sax dem ba am collaboration ak école yi benn jour ci semaine bi ñuy ñëw di ko fi di ko fi seet si. moo di kon lu am solo ci liggéey bi ba tax na ñu fi exploité ab laboratoire ci wàllum semence li di ab pàcc bu am solo ci li nga xam ne moo di processus de production de semence. chaque année dañuy def benn programme pour récolter semence yi ci Sénégal wërngal képp. dañoo am li ñuy tuddee li tubaab di tuddee ay semenciers ay garab yoo xamante ne dañ leen a identifier euh, càmbar leen xam fan lañ nekk ba ba bu ñuy def collecte semence bi du ñu mën a du ñu am li ñuy tubaab di wax consanguinité consanguinité mooy garab yoo xamante ne dañoo jege yoo trop ba bu ñu jëlee seen semence mën na am du mën a duñ ko mën a denc duñ ko mën a utiliser waat. comme exemple am nañ fii nii sump am nañ fi siddéem am nañ fi nebedaay. fële na leen yéen a ngi fay seen euh, baobab njalabaan moom la ñuy utiliser pour defar kurus ak tamit njéembe jéembe beneen phase bi moo di ab pépinière bu ñu duppee Momar Wade fii nag gëstukat yi daañu def li nga xam ne moo di élevage euh, plan yi ak it di amal ay activité de greffage yoo xam ne dina gaaw a màggal li nga xam ne moo di garab yi. pépinière boo ko déggee mooy bërëb boo xamante ne fii la ñu yaree fii la ñuy yaree garab yi bu ñu war a planter. donc ba pour yar yi nag pour nga am garab nag dafa am ñaari façon soit da koy saxal directement wala de nga koy greffer lu ñuy wax greffage boo jëlee pour saxal pour saxal bi ah, day soxla substrat fi nga ko fi nga ko jiw parce que boo amee graine pare da am fi nga ko jiw pour mu mën a màgg mooy li ñuy wax substrat bi dañuy jël suuf ak lu ñu li ñuy wax euh, suuf bu ñuul maanaam euh, euh, terreau jaxase ko pour mu am doole pour que garab yi fay jógee di am doole parce que aussi bay ba jox population dara dañ ko jox la xamante ne dina mën a sax dina mën a boo ko jëmbatee gaaw dina mag a gaaw et puis aussi dina baax lool moom la ñuy def nii buñ ko mélangé pare jëmbat garab bi yóbbu ko ci ombrière bi parce que aussi comme c'est des jeunes plants ay ay ay plants yu ndaw lañ dañu xaw a sensible ci jant bi day day tàng moo tax dañ koy def ci ombrière bi ba demee ba ba màgg ba tuuti ba commencé di jàpp indi fii pour waajal ko terrain bi. fii nga xam ne moo di arboretum bii garab bi daanaka bareetul ci réew mi. bëri biñ nekk mu ngi war a toll ci toll ni hectare dañ ko aménager spécialement pour di fi denc euh, li ëpp ci garab yi nga xamante ne ni moom la suñu chercheurs yi di soxla pour mën a jëf seen liggéey ci anam yu mucc ayib. mën nañ ci citer garab yi ci mel ni euh, njalabaan ñu koy woowee dalbergia melanoxylon soo ñëwee ci bërëb bii nii di nga ko fi fekk am nañ fi euh, garab bi ñuy wax béer. soo fi ñëwee tamit di nga ko fi fekk garab bi ñuy wax euh, xay aussi am na fi ak beneen bu ci mel ni konkoron mu mel ni daañu leen sowe fexe it askan wi xam loolu bu baax a baax ndaxte garab yi doon na ab solution ci li nga xam ne moo di moomeel suñu bopp ci wàllum dund. su fekkee réew mi taxaw na ci li ñuy tuddee souveraineté moom sa bopp war naa mën a jël xaalis dugal ko ci gëstu boo xam ni day lëkkale ñun gëstukat yi waa université jàngalekat yi waa collectivité territoriale yi nga xam ni ñoom ñoo yor euh, sañ-sañ ci gox goxaan yi ci programme yoo xam ni dina def lu toll ni fukki at ñu def gëstu yoo xam ni dinañu mën a teg ci loxol ñi yor réew mi ay jumtukaay yoo xam ni dinañu am ay àll yoo xam ni lépp lu fa jóg mën nañ ko jariñoo ba li ñuy tuddee souveraineté alimentaire ci wetu mbayum nawet mi muy dugub wala mbayum dër mi muy ay lujuma yooyu loolu dina nekk loo xam ni dina dooleel askan wi. centre national de recherche forestière moo ngi fépp ci réew mi ci ay antenne décentralisée moo ngi dépendre ci ISRA bi nga xam ne ren gi lay màggal juróom fukkeelu atam ci jamono boo xam ne alam bi moo ngi jànkonteel ay jafe-jafe tar.